ngeen dañ ci tudd euh, sëñ bas Abdou Khadre mhm. porte-parole de la de la communauté mouride euh, barki démb woote woon na conférence woote woon na euh, déclaration ñu bari xalaatoon ne xëy na dina ci wax mhm. xalaatoo ne euh, ci ndombal tànk yi mu yor dafa war a wax leeral mbir moomule parce que fond bi mooy ñu ne euh, dañ ko dañ institut privé lañ ko joxe woon suuf si mais dafa wëlbatiku jaay suuf si xalaatoo ne vu ses war na ci taxaw wax ci leeral euh, li nga xam ne moom mooy deram loolu ñaari affaire laa ci bëgg a wax bu njëkk bi ci affaire tont bi nga wax laay njëkk a ñëw Euh, sëñ Bass Abdou Khadre bu defee ku wax mu tontu la àddunaam bépp ci tontu la koy def loolu moom parce que euh, at yi mu am ak position bi mu am. sëñ Bass Abdou Khadre yaa ko mag de. waaw at yi mu am ak taxawaay bi mu taxaw dafa tax lu bari ñu koy wax ci moom donc bu defee dama mës a dem. seeti sëñ Saliou ànd ak Ablaye na Seck ñuy waxtaan ak moom ba ñu agsi ci sama métier mu ne ah loolu ñuy wax seen métier day man ku ma ci wax ku ma ci tuddat man duma ci ngaang yàbb ci mu ni parce que boo boo ñu waxee nga ngaang yàbb ci ëllëg bu ñu waxee nga noppi dafay mel ni lañ njëkk wax defoo ko waaye lu lu lu bees lii ñu wax yaa ko def donc bos boo demee bay tontu rek bis boo tontuwul ñu ni li ñuy wax yaa ko def donc moom atam ak fi mu taxawee parce que nag aussi xam nga xam nga Sahel aussi dafa metti gis nga euh, réew yi nga xam ne réew tàng la tar dafa bari soxorante réew yu féex yi nga xam ne dund gi neex na moo gën a tuuti soxorante suñu réew yi nag dafa bari soxorante mais soxorante ci lan. soxorante ci mooy ci wàllu mbir moom position boo amee position cest à fii boo amee position ak boo mënti doon dañ na ŋàññ ŋàññ boo xam ne des fois teguwul fenn. donc pour yow man moo tax teguwul fenn man moo tax non xam nga man boo ma nee sëñ Bass Abdou xaar dafa jël suuf xam nga la may def nag may woon acte ma gis ko. aussi simple que sax c'est-à-dire sëñ bi jël na suuf wan ma act buy prouver ni jël na suuf. aussi simple que sax xam nga wax ji li muy bari bari man gisuma acte buñ ni. sëñ bi lañ attribué telle surface gisuma ko bokk xëy na yow gis nga ko man gisuma ko mais bu ñu ma doon acte na ma moo jël tell suuf dinaa ne mais suuf si lu mu koy jariñ ak fu mu koy dugal ba pare Sénégal suuf si ñëpp a koy jël gis nga journaliste ñiy wax ni xamante nañ suñu biir am na ñoo xam ne lu ñu jël kilifa diine jëlu ko yaa ngi dégg homme politique jëlu ko ci réew mi lañ dëkk tu contre ma sax man sëriñ buy jël suuf. mais boo seetloo. xaaral xaaral la xaaral ci ci ci ñi nga lim muy journaliste yi ak kilifa diine yi. boo seetloo njëlum suuf bi bari na. homme d'affaires yi koy jël. gënuñu leen nekk citoyen gënuñ leen ko mérité. mais est-ce que du tamit li li lal suñu suñu suñu métier ak suñu taxawaay moo tax bu ñu ci tuddee rek. ñu ŋàññu ñu muy journaliste muy kilifa diine journaliste dañ jàpp ne ah. warul dugg ci yenn intérêt yoo xam ne euh, dina tax tey ñu war a wax prédation foncière mu tëj làmmiñam noppi wala ñu yëkkati tuuma ci kawam sëriñ bi ñu jàpp ne daf fi war a nekkal euh, yàlla daf fi war a nekkal jullit yëpp donc warul jël loo xam ne sénégalais yëpp a ko bokk mu jël ko aakimoo ko xëy na particularité bii moo tax ñu ñu ñu ci waxee mu garab may mun a boo fi nekkalee yàlla war nga mën a bëgg daara wala boo fi nekkee ne yàlla war nga bëgg mu dul barab booy tabax juma wala xam nga li ma la c'est-à-dire man li ma contre mooy yow ngay nga jàpp ni homme d'affaires war naa mën a jël suuf nga jàpp ni homme war naa mën a jël suuf journaliste war naa mën a jël suuf te sëriñ war ta mën a jël suuf boo jëlee suuf def ci daara wala nga jël suuf def ci fi ñuy jàngalee xam-xam yaa ngi dégg wala nga jël suuf def ci foo xam ni te par exemple boo bayee fa nga koy jaayee parce que xam nga sëriñ si aussi am nañ pouvoir boo xam ni tey bu ñu fexe woon ba pouvoir boobu état Sénégal def ko économie par exemple sëñ Saliou lu ñu doon bay bu bu état bi fexe woon ba jël spéculation yoo xam ni ça s'exporte très bien mu bayloo ko sëñ Saliou exporté ko loolu ñaata xaalis lay dugal ci réew mi. problème bi est-ce que dégg nga li ma bëgg a problème du suuf bu ñu ko jox. Hmm. problème bi mu ngi amee fi ñu ne suuf si dañ leen ko jox. Hmm. pour tel objectif euh, ñu jël ko jaayaat ko. dafa ñu ci lañ ci waxoon. kooku il faut prouver deux choses parce que journalisme loolu la xam man bi may bind ci famille Fares dama prouver ñaari yëf te li ma yor yëpp dama yor ay PV. yor génne woo ko defal nag waaw mais mi ngi ma yor xam nañ ni. mais génne woo ko li ma wax li ma wax. kenn du ko contesté. waaw mais génne woo ko euh, xam nga tamit keneen bu ko neexee. xam nga li ma wax mu ne da nga woo preuve est-ce que mën wax. man li nga wax dëggal naa ko. waaw ndax vérifié naa ko. xam nga tax muy xam nga tax muy dëgg damaa yor ay PV yor ay mandat de perquisition yor lépp téye duma bind man lu ma amul preuve xam nga boo nee sëñ bi dañ koo jox suuf mu defe ko leneen dafa am ñaar yoo war a firndeel bu njëkk bi il faut nga firndeel ni jox nañ ko moom. il faut nga firndeel aussi ni jaay na ko parce que suñu métier nag soxna si preuve la tu d'accord man lu may bind damay téye loo xam ni képp ku ma woo. mais génne woo say preuve ah, nga ne am naa ko. waaw mais génne woo ko xam nga ne am naa ko. donc beneen journaliste bu ko neexee tamit. mu mettre ko mais dama la dama xaaral ma woon la ay preuve xam nga sama xarit non man <laughs> man man li ngay wax nii ah. dama koy li nga bind ci Fares yëpp ah. dama koy dëggal ndax damaa jël sama temps ah. vérifier waat remonter information dama laa bëgg a wan rek pour nga wax nit ñi ni lii mii li ma am na ci preuve <laughs> dama laa wax nga wax ni man xoolal du ma bind lu ma amul preuve parce que loolu mooy journalisme li may bañ mooy nga bind dara ñu woola ne yaa ko bindoon ngay nakk-nakkal man du ma ko def dama ne sëñ bi ak ni mu toll ci réew mi ay millions nit gëm ko bis boo demee ba ni dafa def dara da nga war a am ay firnde yoo fa teg. mais loolu warul woon tax tamit. Ah. Euh, euh, ñoom tamit ñu démentir ko. Hmm. waaw parce que bàyyi flou bi nii. waaw baaxul. xam nga may mën a démentir ci kilifa ku toll ni sëñ Bass Abdou Khadre yombul yombul parce que je vais t'expliquer tey euh, bu démentir rek mooy dafa wàcc ci débat bi mais bu wàccee ci arène bi wàcc ci làmb ji